ñu ngi leen di gërëm yéen journalistes yi yéen ñëpp fii ngeen nekk mooy cité des enseignants de Tivaouane Peulh COSEYAS euh, lotissement bi mën nañ ni am na plus de mille cent parcelles mille deux cent parcelles yooyu aussi mën nañ ne li si ëpp yëpp tey tabax nañ leen bu dëkk si loolu lu am solo la parcelle fii aussi xaalis bu bëri lay jar loolu moo yëkkati band yi loolu dafa leer nañ dañu sell nag depuis un certain temps te dafa am benn nit bu ñuy woowee El Hadji Ousso Dia nga xam ni amoon ay nag di sàmm comme mënut a sàmm ay nagam dañoo mujjee jeex di si desoon mu jaay ko léegi nag dafa soppeeku promoteur immobilier moom ak ay doomam ki si jiitu ni Mamo Dia mam mama noonu la keneen ki di abo ci promoteur immobilier bi aussi fu ne xeex nañ fa ci gox yi fii nag lañu ñu dañu ñëw fii ànd ak seeni ay band yi ñu recruter ay nervi yoo xam ne ku leen gis sax xam ne ñii yàgg nañoo nekk prison yàgg nañ leen jàpp ak jàppaat ay bandi ñu ñëw fii tabax fi benn néeg installé wu si site bi Ousso moo leen di dundal moo leen di jox ñuy naan moo leen di jox ñuy lekk moo leen di jox également ñuy def seeni yeneen duñ si yegg biñ fi ñëwee ñoom nervi yooyu euh, li ñu seetlu mooy dañuy ànd bu ñu xëyee ak Ousso ak njaga terrain boobu bu fi nekk te xam nga xam ne kenn jaayu ko kenn tabaxu ko ñu ne terrain bii dañ koy jaay ut seen nit ñëw jaay ko ko 6 millions 7 millions 5 million jël xaalis bi damm seen poos te yàlla xam ne terrain boobu ñuy jaay moomuñu ko parce que buñ lay jaay terrain duñ la jox kayit duñ la jox sax ak de vente dañuy xëy rek joxuñ terrain ne terrain bi maa ko moom jaay naa la ko ñaata 7 million nga génne 5 mille 7 millions joxe ñuy xamal jëndkat yi terrain yi ne fii ku fi jënd terrain usoo jaay la ko perte nga sa terrain nit ñi dañoo war a am fulla ak fayda te xam li ñuy def jaay la terrain ne la tabaxal léegi-léegi taxaw ne la acca borom terrain bi yore ay kayitam ñëw teew yaa ngi dégg euh, nerve yi dal si kawam loolu moo fi am dal si kawam dax ko kon ne seen tabax am seeni complice parce que bu nerve yi quand ñëwee nga am seet kayit won ko gendre gendarmerie mais gendarmerie quand même dafa war a jël décision mooy yaa moom terrain bi mais non non non gendarme bi dañ la arrêt d'escorte ne la ñibbil boo ñibbee Ousso ak i xaritam ñëw kon ne di tabax ba nga ñàkk sa terrain gendarmerie moo ñu war a défendre loolu ci seen i ay mission la lu fi leeru gendarmerie dafa war a fexe mu leer parce que ay officiers de police judiciaire lañu mais fii dara leeru fi te gendarmerie chaque jour mu ngi fi gendarmerie bu Tivaouane Peulh laa wax chaque jour ñu ngi fi mais fii dara leeru fi loolu quand jaaxal na ñëpp te jaaxal na waa cité bi bi loolu amee na xeex yi di fi am insécurité bi ñu ne nañ ci dox ay jéego ñu bind lettre d'information déposé ko gendarmerie bu Tivaouane Peulh déposé ko gendarmerie bu ñàgg def ci également ampliation si yeneen structure fii si ndakaaru ba Rufisque toog di xaar maintenant dafa am lu fi xew si fan yi bi ñu demee pour déposer suñu lettre d' information bu ñu si si vendredi bi dañuy ñëw fekk benn problème am fii si benn parcelle boo xam ne suñu benn xarit bu baax muy ko libali moo ko moom mu ñëw di tabax këram maanaam mamoo ya ñëw ànd ak nerve yu bëri ak ay élément descos ñu ñëw ne waa ji arrêté ñu ne kon nañ dem xool ñun waa collectif la fa xew bi ñu ñëwee suñu benn xarit ne xaaral ma filmer fondation bi ak terrain bi benn gendarme ne bul ma filme mu ne ko non filmer wu mu la man xam naa yoon te yàlla xam na ne kooku xam na yoon c'est un grand juriste maîtriseur en droit loolu vérité absolue mais xool fi mu taxaw moom gendarme bi naan bu ma filmer euh, suñu xarit boobu di ko expliquer moomoo ja moo am fit ëpp fit gendarme bi nga xam ne officier de police judiciaire la yore pistolet moomoo moo ko ëpp fit moo ñëw arraché portable bi suq yi mu àndal nervi yi commencé dóor ay kurfañ dóor ay yet ak i barre de fer mais ñun ñëpp a jaaxle coow li ne kur waa dëkk bi nag biñ déggee coow loolu dañoo daw teew si fii fees dell jaxasoo bu rëy am fi euh, euh, coordonnateur du collectif bi muy ja muy monsieur Seck nga xam ne vraiment dafa ànd ak dal am xel ak ñi ñu àndal ñëpp mu mën na ñëpp calmer wu wax ak population bi bu ñëpp ne kon baax na nañ dem julli ji ñu dem ca jàkka ja julli ndeke boobu mama jàng nga xam ne xol bu bon la yore en réalité dafaa dem recruter dafaa dem uti renfort dem indi fii ay une trentaine de jeunes ñi yore ay bar de fer ñi yore ay yet yaa ma di ñi yore seeni paaka ñi yore seen i xeer ñu ñëw rek songu population bi keroog kenn xamul koñ bi ni mu mel mais xam nga jeunes yaa ngi fi jeunes yi aussi génn xeex bi bi mettee ba métti ñoom ñu tiit jaaxle sonn daw dugg si benn kër. président collectif bi monsieur Seck ak ñi mu àndal ñëpp notable yi ñoom imam ñoom délégué ne loolu du leen fi fekk nañu bàyyi ñu woo gendarmerie ñun ñoo fi téye doomu Ousso yi. ak nervi yi ñu àndal pendant au moins presque cinq heures quinze heures ba dix huit heures couvrir leen protéger leen gendarmerie temple bi mu ñëwee nee na mënu si dara pour problème bi réglé wu dañu indi fii escadron de la gendarmerie avec une légion dirigée par le capitaine Kairé avec plus de cent éléments boo ñëwee fii da nga naan fii moom guerre mondiale moo fi dekki LG yi bi ñu ñëwee ñoo naxtaan nit ñi ñu ne leen ok jël leen gaay ñu jël gars yi jox waa LG yi mbaaw jox leen paaka yi ñu yore woon ñoom ak jaar si ñu yore woon ñu ne kon léegi ñu ngi leen di yóbbu ñu ne ok mais biñ fi génne gars yi dénk leen gendarmerie Tivaouane Peulh defu ñu ñaari waxtu foofu gars yi lañ leen génne ñu romb dem ay bandi ñu jable ne ki jaase ki paaka ñu attaqué ay doomu aadama ñu jàpp leen ñu dem j'ai dit loolu c'est un scandale ñu mobiliser wu une trentaine de personnes xanaa ëpp naka sax biñ ñëwee dañ ko def affaire u stratégie d'armée ñi taxawee ko côté kër imam ñi taxawee côté euh, Loum ca Wave ba ñi taxawee côté kër monsieur Ngom sa boutique ba ñi taxawee côté kër Mass et cetera ñu tas biñ ne 16 heures pile jot na xool foo toll yaa ngi dégg xeer yi naaw yuuxu yi di jëpp bal yi di tàkk ñuy defandoo de manière simultanée toj ay oto mas baa ngi nii otoom lañ rajaxe imaam a ngeen ne raafkaatam lañ toj rajaxe ko monsieur Loum mu ngi nii gis nga vee bi mu yor bàyyi wuñ fa dara télévision baak yëpp xaalis ba fa nekkoon ñu yóbbu tonton Dia mu ngi fi boutique am lañ dem ay bali lañ taal mas buntu këram bal yee tàkk xawoon nañoo rey e, doomam bu rafet bu ñu woowee awa xawoon nañ ko rey non mais sérieusement c'est la vérité naroon nañ ko rey donc loolu lépp bi mu amee nag ñëpp ti daw génn finalement gendarmerie moo ñëwaat àndaat ak escadron de plus de cent éléments avec un capitaine à la tête ñu ne loolu nag quand même ëpp loolu ëpp na ñun nag dañuy laajte ndax Ousseau Dia dafa am si réew mi fii ku koy protéger wala déet su amee ku koy protéger kan la gis nga Ousseau xoolal man de séeréer laa jógee ñaaxar mais fii teewoon pël tuddatul teewoon pël nañ ko tudd teewoon kese pël yi moomatuñ ko ñoom kese ñun ci lañ bokk il faut que ça il faut que ça soit moom nag dañuy alerte gouvernement bi di alerter état bi di alerter les forces de défense et de sécurité pour neleen leen Ousso ak Mama Dia ak nervi yi ñuy àndal bu ñu duggate fii cité enseignant bu ñu fi tegati seen tànk parce que amuñu fi kër kenn si ñoo amu fi kër kenn si ñoo amu fi terrain yaa ngi may dégg kër si ñoo amu fi lenn kon nag luñ fiy def te bu ñu ñëw indi seeni i seeni ak paaga indi seeni i fetal j'ai dit que alerté nañ nguur gi ne leen Ousso ak ñi mu àndal bu ñu tegati fi tànk parce que fii ñoo ko moom danañ ko défendre danañ ko défendre nag te jaral nañu lu ne mas ba setuma ba nee na du nangu kenn toroxal ko fii sekk nee na du nangu kenn toroxal ko fii parce que alalam la fi def imaam Seck bu ñàndan nee na kenn du ko toroxal fii parce que aussi moom mais moom moom yëfam kon nag alerte nañ nguur gi di xamal force de défense et de sécurité yi ak justice ne dañoo war a dem kër El Hadj Ousso jàpp ko jàpp mooma jàpp abo yóbbu leen prison defeere leen loolu mooy dëgg parce que ay bandi liñ bandi dañ koy tëj prison collectif bi muy euh, coopérative bi ñu nekk di collectif des enseignants pour l'habitat social mi ngi commencé terrasse site bi en 2009 la ko jëndoon premier lot bi mu njëkk jënd mi ngi tolloon ci 15 hectares kii leen ko jaayoon mooy Aline Badara Badiane mu Namora je pense que ñi nga fekke woon sax jour boobu premier chèque bi ñu dégagé 20 millions yi ñu ngi ko defee woon ci ministère de l' à l' époque général boobu jamonoy Kalidou Diallo moo nekkoon le ministre de l' éducation fa ko fay COSEYAS commencé terrassement bi en 2009 2010 ci lañ njëkk a commencé les attributions 2012 délibération yi pratiquement génn na COSEYAS yokkaat jëndaat am lépp lépp globalement 30 hectares mais pour fàttali leen ne même les 30 hectares ne sont pas occupés même 20 28 ko yu bari dañ ko doon sàcc yo yeneen histoire la woon yu jiitu Ousso ñu mel ni moom ñoo doon def yu ni mel ba tax les 28 hectares sax aujourd'hui occupé wuñ ko cité bi ñu ngi fi commencé habité en 2013 je pense que c'est Imam Seck moo fi njëkk a dëkk après délégué Fall ñëw na fi 2014 donc ñuy xeex nekk fi organisé wu ba tey yàlla dogal ñu am délégué de quartier boo xamante ne officiellement lañ ko installé tey ñuy xeex di xeex ba tey lii am ay courant am jamono yooyu yëpp man je me demande Ousso fan la nekkoon waaye li wolof di rek lu sotti rek am borom dañoo ñëw ba deux mille vingt deux deux mille vingt trois man dama xëy benn bés rek benn voisin woo ma Mbow sa numéro de gisatuma ko woon sax dama ko wër wër bët ba finalement gis fi nga ko bindoon ci parcelle bi. ma ne qu'est-ce qui s'est passé c'était le 30 mars 2023 bi mu ne sa terrain de ñu ngi koy jaay léegi benn dam ñëw nañ fi commencé def ay gas ay suul di def ay mbir commencé mool boo gaawal dinañ fi tabax. aussitôt le lendemain kon ci ramadan lañ nekkoon le lendemain ma ñëw bi ma ñëwee. xaar ñu ne ma ah gis ku ma gars yi commencé gas ci saase nag dañ lay jaay rek ne la gaawal tabaxal parfois guddi sax nga gis ñu tabax ñu ne ma ah ci de ñun daal dañuy liggéeyloo benn daam daal lañ fi jaay nangam nangam ma ne ko ah boo mu ne waaw ma ne ko amu problème man ci laa ñëw toog toog di ko xaar ba daam bi ay côté midi 13 yooyu mu daal di ñëw ma lay yow dañ laa jaay fii mu ne waaw dañ ma kaa jaay kan moo la ko jaay mu ne ma Njaga Sow moom ma ko jaay ma ne ko fii de maa moom sama délibération mi ngi nii sama attestation d'attribution mi ngi nii sama adhésion ci colle coopérative mi ngi nii sama talon yi nga xamante ne reçu yi ma doon versement mensuel yi yëpp a ngi nii depuis 2010 laa commencé verser ba ni ma matale mu ne ah man de daal dañ maa jaayoon ci extension ba benn terrain Ousso moom fa jaayoon kuñ naan doomam benn doomam ma ma ja ñëwaat am ku mu ko jaay ma ñëw fekk ñu tabax fa ñu ne ma garaawul di ngeen ko lijjanti boobu ba léegi ma leen topp ça fait maintenant deux ans ci laa ko moom enseignant yi amuñu fi dara da ngeen wax jooju parce que loolu la ñuy wax comme information ñu ne ci lañ ñëw ne yow dam comme da ngay yëngu ci wàllum ay transit ak yi ay jaay ak yooyu conteneur di ngeen la jox benn terrain en angle moo gën léegi da ngay xool ci ñaar yi ba bëgg ñu joxoñ ko sama terrain ak beneen terrain 300 mètres carrés boo xam ne ku ñu naan Medoune Diop moo ko moom mooy parcelle numéro 55 moom mu ne bii daal moom a gënal sama terrain Ndiaga Sow nee na ndaw si mooy nettali mu ne ko ah man de da ngay yokk 1 million ñu jox la bi ci saa si mu génn 1 sama terrain ñu gaawal tabax depuis boobu nag le 3 avril 3 loolu 30 mars la amoon 3 avril def naa woo naa UC ñëw constaté ma porte plainte yóbbu ko DSCOS général 10 jours après mu ñëw DSCOS bu Rufisque pour ñu arrêté leen nag c'était un problème chaque jour chaque jour finalement dama daan fay xaalis di déplacé wu pour leen déplacé wu ñu fay ko c'était un problème ba finalement alhamdulilah ñu arrêté leen mais malgré ça ñu ñëwaat continué waat te jusqu'à présent ndaw si woo nañ ko auditionné benn këyit effectivement ni ñu ku mu jaay Ousso dafa am 15 yoo xamante ne dañ ko ko defal depuis 14 août 2012 te extension ba je dis bien miir naare boo ko jëlee extension ba 15 hectares ñun ñi ngi ak plan 15 hectares boobu fa mu yem ñi ngi tamit délibération bi yëpp tamit fa mu yem mais dafa jël toolam yooyu def ko comme toolu mango terrain jaay na ko ba mu jeex takk depuis 2012 jaay na avant 2015 jeex na mais dafa def toolu mango at bu nekk mu bëgg a di ñëw di jaayaat at bu nekk muy jaay di jaay jeex na léegi mu ne comme dafa am problème ak la coopérative en personne monsieur Ba sax la amoon problème dans l'extension parce que dafa am fu mu ko jaayan ñu am ay conflit ñun loolu duñ ci dugg Ousmane Gueye Ba mooy président ne conseil d'administration bu COSEAS suñu yoon nekkul ci loolu ña ngi ko am ci extension bi ñu amee problème foofu ci extension bi Ousso nee na dem na ak justice moom bi ñu demee justice première instance ñu jox ko dëgg je dis bien extension bi extension bi après di ngeen leen wax ci papier fan la commencé ak fan la yem te extension bi tamit mairie Tivaouane Peulh moo ko jël octroyé ko la jeunesse de Tivaouane Peulh extension bi mi ngi toll ci 28 hectares ci 28 hectares yooyu Ousso 15 lañ ko ci jox te actuellement jaay na 22 hectares je dis bien jaay na coopérative des enseignants mooy bu ko seeyaas 5 hectares moom la jaayoon monsieur Ba moom lay wax empiètement Ousmane Gueye Ba mi nga xam moo jëloon ko moo ko jaay foofu. jaay na coopérative famille Gueye El Hadj Moussa Gueye 1 hectare jaay na coopérative Ibadou yi SSMD. Ibrahima Diallo 6 hectares jaay na coopérative Mame Fawa di Wele bu Oumy Gueye dirigé 5 hectares Ousso Gueye moo ko jaay dans l' extension jaay na coopérative des militaires commandant Diallo 4 hectares jaay na coopérative des policiers Bassirou Ndiaye 1 hectare 1 ar 74 santiar coopérative Lobbu Mame Diarra jaay na leen 1 hectare 60 jaay na tamit Ousmane Gueye Ba boobu c' est pas la coopérative mais Ba moo ko jënd 1 hectare Ousso Dia moo ko jaay dans l' ak ay individuel lu toll ci 2 2 hectares donc 2 hectares boo ko cent six terrain la lii bu ñu ko estimé te deux hectares yi bokku ci mi ngi toll ci vingt deux hectares mu jaay ko temps l' extension te l' extension Tivaouane Peulh vingt huit hectares la kon kooku bu ñëwaatee ba nga xam ne lay jeex na ay nit yu mu jël lekk seen xaalis ñu koy topp ñu koy topp naan dañu teere teere mu ñëw dugg cité Gossias mu nooy mu bëgg a naan fii laa toll sama fii fi leen après di ngeen leen wan lan mooy limite extension yi fan la commencé fan leen te je dis bien extension muy wax sax naan dafa am empiètement ba dem yoon ne ko la ñuy toppee euh, monsieur Ba ndax ne daf ne dafa empiété ci kiyam de 4 hectares monsieur Ba dafa jënd cinq hectares la coopérative dispose des reçus protocole de vente délibération bi yëpp ñu ngi moom loolu beneen wax la pour vous dire tout simplement Ousso manipulation lay def ak tamit du faux lay nekk di dugg di nax nit ñi mais mënatuñoo nax parce que lépp leer na fépp fu jaar jaar nañ fa ba yor les papiers xam naa bu ngeen pare léegi nag dafa am loo xam ne dafa commencé am ci comme ni ñu ko waxee mënu ma répété ay nervi lañ jël ñëw fi dañuy xëy suba teel comme ni war rek jël benn terrain nee ay jaay moom nag du ñëw te boo demee gendarme danaan jaayuma kenn jaayul kenn moo ñi mais jaay moo leen procuré njabootam lañ ñooy ñëw di jaay ci turam ndax képp ku ci jaay day jël lan benn 15 hectares la lay jox du la jox papier 15 hectares am boobu daal lay jël dans l' extension boole kaak benn acte de cession boo xamante ne bii njagaa koy signé léeg-léeg Ousso Dia moom mooy signé léeg-léeg Mama Dia léeg-léeg tamit euh, Moussa Dia ah ak ñeneen ak ñeneen ñooy ñëw di jaay. Euh, Birane Gueye laa tuddu représenté fii El Hadj Malick Youm du SAEMS te buñ ne SAEMS ak le CUSEMS ñooy syndicat yi ëpp doole ci Sénégal bu ma ko dee wax nag jàngalekat yi taxul may wax xëy na sunu yaay ak sunu doom yi ci ginnaaw la te euh, mbir mii li ma fi dégg dama ne sax dafa dépassé ay syndicat enseignant léegi bi journaliste bi laaj ñan ñooy victimes yi. kii di ko wax 65 dama ne man victime laa parce que bu ñu demee ba ay bandi di ñëw di dal ci kaw population lu ne mën na ci am duutul mbiru enseignant yi ba tax na ni ko camarade ndongo waxee te ñuy liggéey ensemble fépp loo xam ne jëm na ci école lii dañ koy jël ñun interpeller le président de la république interpeller le haut commandement de la gendarmerie parce que dégg nañ léegi gendarmerie lan moo ci rôle am interpeller le ministre de l'intérieur parce que bu fi benn bakkan deewee je vous assure que ça va dépasser les enseignants bu fi benn bakkan deewee demee kum neex dugg cité nam fii maa moom jaayal ma kee dem Thiès jaayal ma kee dem feneen jaayal ma loolu mënul continuer ci réew mi te mbirum suuf nag démarré wul fii dama jàpp ne bu ñu bëggee réew mi am jàmm lii bu ñu ko dee dégg si télé président de la république ne interpellé ministre de l'intérieur président de la république ne interpellé la haut commandement de la gendarmerie ñu ñëw fii gëstu xam li fi xew suñ ko deful dana jéggi loxo te bu jéggee loxo mën na law ci réew mi ba tax na nag ñi fi nekk ñu leen di wax ne na seen xel daal parce que danañ ko yóbbu fañ ko war a yóbbee danañ ko jooytu fañ ko war a jooyee dañ def ay délégation rencontré autorité autorité yooyu ñu leen wax ne leen lii nag nekkatul mbiru ña a dëkk mais ñun suñu mbir la te jàpp naa ne loolu buñ ko waxee seen xel war na dal parce que xeex ba may tooñ léegi ñu ngi ne ko mënoo xeex ca école ba bëgg a xeex fii waaye ci deret bi la nekk ministère de l'intérieur moo yor kaaraange askan bi bis bu fi kenn deewee te nag dañ koy wax gis nga li xew fii parce que xeex toujours noonu la tàmbalee buñ jàpp ne fii la yam de ay jàngalekat yi la bu ñu xëyee dañuy dem seen classe jàng yi seen bopp bu fi nekkul seen xel bu fi nekkul duñ mën a def liggéey ba na mu waree te tam buñ demee gannaaw ñu tuuse fi benn jàngalekat wala fameem Sénégal gi yëpp danañ jóg te kooku man maa leen ko wax kon nag bu ñu guddal réew mi fi mu toll nii je pense que li fi am dafa doy sëkk bu ñu ko xar mi karaw na autorité jël seen responsabilité trouver une solution ci lii rapidement parce que sénégalais bi nekk Thiès sénégalais bi nekk Diourbel sénégalais bi nekk biir dakaar li fi xew da ko intéressé parce que buggul ëllëg saay-saay ñëw fa mu fekk fa mu dëkk ne ko maako moom jaay ku mu neex loolu du fi amee